ni ki bi ñu weesu l'accident bu metti am fële ca commune bu jandeer diggante njar ak golom nekk ci bayax ñeenti bakkan rot ca l'accident boobee ab camion moo mbëkk benn particulier bu ab moodu moodu yoroon yàpp ci waajuram bu jigéen ak ñaari rakkam doon dem fële ca ndakaaru jëli ji ab conteneur ñoom ñépp mujje faatu mu mel ni askanu bayax googe ci nakar ak tiis lañu nekk ci ayu bés bi ñu génn ndax ñetti fan ci ginnaaw beneen l'accident bu metti amoon na fa juróom benn bakkan rot ca Alassane di maire bu Jandeer àdduna ca jafe-jafe ya mais ku ne xam na ni Tëngéej ba Mboro amul saxoor te loolu dara gënu ko garaaw ñun nag ñu nañuy mu mel Alassane di maire bu la mu wax moo ca nekk ndax la askan ba di jooyanti mooy sa peur ngir jafe-jafe yu metti dañuy am bu fa yu mel ni amee El Hadj Babel Thiam TV.